jërë ngeen jëf ab tànk bu toogul jógi ay dëkk wala fa ko wax premier ministre Amadou Ba candidat bu benn Bokk Yaakaar bi sol aw dàllam dugg dëkk bi di wër réew mi sursoi ne nañu dégg na dëgg bërki démb ca Louga biliyéene kay bi ci kaw tournée def moom Amadou Ba ca la demoon bërki démboon nuy ji famille Mame Cheikh Mbaye bu Louga waaye ay nopp yu réer la fa jële ndax ay dëgg yu rëy yuñ ko fa wax Serigne Ibrahima Mbaye di doom ci Serigne Sam Mbaye moo ko ne li nga def ne li ñu koy am bariwul mu di ab premier ministre bu sol aw dàllam jug moo tax dañ ciy profito wax la lépp li ñu xalaat li ñu xalaat mooy dund gi na amul ci réew mi benn benn borom kër boo xam ne boo tëddee da nga nelaw ba yandoor ndax réew mu mitti jot na ngeen ko dafa war a dakk ngeen fexe ba sénégalais yépp bokk yam ca kanamu justice sursoi nañu sëriñ Ibrahima Mbay mi doon wax ci turu famille bi ba mu waxee bu nuppi Amadou Ba yàccam dana yasar aw yaramam summeeku Abdoulaye Mbay peex mi mu àndaloon sax mu ko doon jottali mujj gi aw làmmiñam da koo réer point actu mel na ku naan ñu moom candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba bu bëggee dégg son excellence bari na yu mu war a li ci réew mi laata ñu yegg ci élection présidentielle yi ci yi mu war a lijjanti yéenekaay bi nee nañu njëgu courant bu seer bi yokk saa su nekk dem bay maasaate war na ko lijjanti te nag su bëggee xam coowal courant li mu mën a yàq cim réew na laaj Abdou Diouf ba mu laaj Abdoulaye Wade leneen lu journal bi gis mooy Amadou Ba mi waa Benno Bokk Yaakaar ngemb ngir mu bëre leen ngemb nañu ab candidat bu xamul terrain bi wàcc ci terrain confiné leen ci réew mi nee leen nañu wàññi tukki te toog ci réew mi lu ñu war a lijjanteeti bitim réew ngeen bàyyi kook ambassadeur yi fa nekk te yéen ngeen toog ci réew mi libéré wu libération xibaar ne Ousmane Sonko mi ñoñom yi di sàkku ñu libéré ko Ousmane Sonko xëmaat na démb ca pavillon spécial Cheikh Tidiane Dieye bu yeeyu askan moo ko wax démb nee na dafa def malaise bu garaaw a garaaw ba perte connaissance réanimation fa la mujj témoigné dellu si libération kenn ci awakam di maître Ciré Clédor Ly ni ñu ci vox populi Ousmane Sonko nee na li mu bëgg mooy ñu jëlee ko ca pavillon spécial ga mu nekk jamono ji ca delloo ko ca kaso ba avocat bi ne li mu jàpp mooy Ousmane Sonko dafay bañ dara dal ko ñu gàll ko ci ndor dal ñi ko yore ci hôpital ba moo tax mu bëgg ñu jëlee ko pavillon spécial delloowaat ko ca kaso si bi xotaan ba mu jóge woon réew mi quotidien ci ne Ousmane Sonko dafa gedd teraangay pavillon ba tey moom Ousmane Sonko l'observateur mi ngi wax ne ay awakam sisir nañu Sénat wax ci ba ñu parrainage am ñoom avocat yi L'Obs nee na ñuy dàq nañu li waa direction générale des élections wax ne moo tax joxuñu Ousmane Sonko ay fiches de parrainage agent judiciaire de l'État lise ko mi ngi wax ne moom it bàyyigul Ousmane Sonko ba léegi jël na ab ab yongom démb dem si Ziguinchor ji ab recours ca taabali greffe bu tribunal d'instance ba li ji Sabassi Faye ne nañu bindaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi loolee la agent judiciaire de l'État bi ne du ko dégg ñu ba campus social bu université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru mën a ubbi mooy conseil d' administration bu COUD centre des œuvres universitaires bu ndakaaru ca seen ndajam keroog ma def ci am yu conseil d' administration bu COUD bi ne na ko COUD réglé ba noppi ñuy soog a mën ubbi ñu ubbi journal bés bi fekkaat fa coowal université yi yéen kay bi dañuy wax ne li ñu fi dundoon ci weeru juin gii weesu mi ngi xeeñ ci université yi ne étudiants yi taxaw nañu temm ne dañuy xeex ngir ñu démarrer cours yi ci jamono jooju bulletin de renseignement yi xamle nañu ne sagara nga xeeñ ci université yi arène bi ñu wax ci lamb ji ak l'observateur mi ñu xëy xibaar ne Ama Baldé danañu ko convoqué ca kanamu conseil de discipline bu CNG bi li tax ñu wowoon ko keroog ci face to face diggam ak Modou Lo te demul loolee la war a dem lijjanti ko ca kanamu CNG bi li mu def moom Ama Baldé l'observateur mi ngi ñuy wax ne ay daan mën na ko cee fekk daan yu tàmbali ci juróom benn di weer yu ñu koy suspendre ba juróomi at yu ñu koy suspendre. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot su ne ay réew.